asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julliti mbokki taalibe yi yéen ñi seetaan ci seen télévision Touba Argentine TV ba tey ñu ngi ci seen waajtaayu màggalu Touba 2017 tey jii ñu dalal gan gu màgg gu tedd gu ñëwoon fii seet si ñu di sëriñ seex Mbacke gay e, di dongob sëriñ Bolle Mbay sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu te di la ziare. alhamdulilah jërëjëf sëriñ Salif ñu ngi lay nuyu baax di la ziare di nuyu waa. télévision Touba Argentine di nuyu képp kuy dégg suñu kàddu di leen wax asalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa ñoo ngi ziare bu baax te di la dalal ak jàmm fii ci studio bi sëñ Cheikh ñu bëggoon a xam euh, kan mooy Cheikhul Xadim bismillah alhamdulilahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man bi imaanin wa islaamin wa ihsaanin ila yawmi diin alhamdulilah laaj nga laaj bu am doole bu am bu kawe lool waaye boo xam ne si moom sayxul xadim radiallahu taala anhu liñ xam ci moom ci zahir rek donte sax nekkul ku ñuy xam ndax nee na maqaamaam wala darajaam ump na kudul yàlla suñu borom tabaraka wa hmm. kon kooku xam ko dina jafe waaye liñ xam ci moom daal mooy nit ku baax la koo xam si mu ngi feeñ ci famille bu sell bu yàgg ci lislaam way juróom bu góor ñu koy wax Mamour Anta Sali Bakki radiyallahu taala anhu way juróom bu jigéen ñu koy wax soxna Jaaratullaah radiyallahu taala anha Cheikhul Xadim mu nekk seenu leer suñ borom tabaraka wa taala jaarale ko si ñoom préparé ko ngir lan lam doon wax ne wal bala du baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi ni rab bi buy préparer doomu rek préparation bu sori lay doon commencé ko cay maamam cay waajuram ba keroog moom muy feeñ di nekk ki bëgg mu nekk ko kon kooku mooy Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhu mu nekk nit ku baax koo xam ne si xettelukaayu mbooleem waa jamono lay doon ndax buñ gëstoo am mbindam dañ koy gis muy wax lu wax mu lu mel noonu ak maqaama yi ko borom bi tabaraka wa taala defal Cheikhul Xadim mënul woon a ñàkk ci nit ñi rawatina ñu waa Sénégal ndax kat borom bi saa su nekk bu jamono demee ba mel ne luy bëgg a ràpp mhm. day wut nit mu yeesal ko buñ xoolee am mbindam ma nga naan lil Mustafa nawaytuma yujaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu ka waxoon loolu mooy Cheikhul Xadim radiallahu taala anhu mooy dafa ñëw ngir yeesal sunna sayidina muhammad alayhi salaatu salaam loolu mooy yéeneem ci alhamdulilah rempli na yéeneem yépp sëriñ Tuubaa radiallahu taala anhu mi ngi feeñ jamono ci mbakki Bawol ci waajuram yooyu ñu tuddoon nekkoon ku teel xam suñu borom ko wa la waaye teel a xam fa gaa yu baaxee jaaroon ba tax na dundam gépp fa la jaar ba tax mu am li mu am mu nekk kuy sonnee ci xam-xam nekkoon ko maanu ko ragal yàlla wuuteeg nit ñi ci lépp mboolem lu doomu aadama di mel rek sëriñ bi moom ak njëlbeenam daa wuuteeg nit ñi ba am na ñoo xam ne si sax dañ koo doon tuddee yeneen yeneeni tur yoo xam ne si du war ma ñu koy tuddaat di ko jëmale mu nekk ku déggal ay waajuram di jaamu yàlla di jàng sàkku xam-xam bu leer ba keroog bi nga xamee ni si waajuram wu góor Lat Joor woo na ko fële ca Mbàkke Kajoor ca Kajoor daal koy daggal suuf soosee muy Mbàkke Kajoor mu nekk fa di jàng ka jàngale ndax waajuram ko bari woon xam-xam ne ko sell la nekkoon ab xaad yi di àtte ci lislaam sëriñ bi ginnaaw bi nekk na fa ak moom ba bi muy am fanweeri at ci la wuy juróom bi wuy ju boroomam tabaraka wa taala mu nekk fa diirum ñaari at di jàng ka jàngale ca jamono ji muy jàngale nekk ak wuy juróom mboolem ñi daan jàngal ñëpp dañoo xeemee moom xeemee moon fasaaxa gi ko suñu boroom defal xeemee moon moom mu jàngal leen ngir ram di ko borom bi may te donte sax xamaguñ ko noon noon mu nekk fa di jàngale diirum ñaari at daal di am digal ci yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam mu mel ne fa suñu borom tabaaraka wa taala jaaroo nag Seydina Mor alayhi salaatu wa salaam ba muy woote woote ay ab diir kenn wuyu ko ay mbokkam rek di ko wuyu borom bi ne ko fas daaw bi ma toomar daa mel ne foofee la yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam jaaroo nag Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu ci rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars ne ko na nga soppi nii nga doon jàngalee te jël weneen yoon muy li ci lay tax la karim jëm ci yàlla suñu borom tabaraka ak a wax nañ ne ci jamono joojee ba mu ko defee jaaxaloon na ñëpp jaaxal donga ya ak képp ku nekkoon ca daara ja ndax jamono joojee ka dañoo xamoon ci sëriñub daara jàng ka jàngale di sukkandiku ci ay taalibeem ñu koy liggéeyal ak di ko bayal waaye mu mel ne daa xëy bis mel ne lu tas daara ja ngir ne am na ndigal ci soppi ni mu nekkee woon daal di leen def déclaration bu mag boobu képp koo xam si njàngum kese ni ñu xamoon moo la fi indi la neexee nga la àggale sa mm-hmm. sëñ bi bi muy bi muy bi muy doog a commencé am na am meneen njàngale mu daan mu doon jàngale même fi fekkoon waaye daa dem ba ci biir njàngale moom mu soppi ko maanaam maanaam lu lu lu lu tax mu gën a gën a soppi njàmm njàngale moom. li tax mu gën a soppi njàngale mooy mooy li mu wax ci rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars bi mu gisee yonent yàlla moom alayhi salaatu wasalaam jahran ci lu dul ay nelaw ci la ko digalee ne na soppi njàngale mii nga xam ne ni xamoon rek koy mooy ni ma waxoon sëriñ daara yi ni ñu daan def ci jamono jooje waaye moom mu indi lu bees ñenn ñi xamuñu ko ñenn ñi wóolu nañ ko ñu ci baree baree bare dem wuti feneen ca lañ xamoon waaw dem delluwaat te lañ xamoon ñu ko wóolu nag bàyyi bàyyi leen ko bàyyee ko seen bopp ci niñ ko xamee ni ko histoire bi nettalee naan ay sëriñ Adama Guèye Cheikh Ibra Fall sëñ Massamba ak mboole mag ñi ba ñu sëñ Daaru Xasan Ndiaye radiyallahu taala anhuma ñoom ñoo ko wóolu ne ko jébbal nañu leen bopp fépp foo bëgg àgg bëgg nañ fa àgg loo ñu digal ñu def ko loo ñu tere nga bàyyi ko maanaam kon mën nañoo waxee ne yoonu murit foofu la commencé ci lim ndaw boobee. Mm-hmm. mooy njàngale mi ak tarbiya waaw kay ah. nga xam ne ña nga xam ne si sax dem nañ ñooñu kenn du leen yedd ñàkk xam rek. moo war waraloon li sëriñ bi indi. Mm-hmm. waaye ginnaaw ba ñu bi nga xamee am na ñoo xam si ñëwaat nañ mm-hmm. waaye ña demoon ñàkk xam moo waraloon loolu. Euh, sëñ sëñ sëñ Seex sëñ daa mel ni loolu am na solo lool te it mu bokk ci mel ni lan moo tax sëriñ bi euh, soppi aw dëkkin. ak mel ni Daaru Salaam Touba xeeti dëkk yu bari yooyu waaw. ndax ci biir loolu rek mi ngi doon wax naan wa min xajaa'ib ibni Abdillahi salla alayhi salaamullahi baaxin adaa arduhu bil awliyaa ilal xiyaamati wa kullun waliyaa sunnatahu wa saanaha an man bi fasdahi ba del di wax li ma waxoon naan amarahu salla alayhi fi l aali wa sahbi bi an yuallima al muridina wa man yaqbalu minu yaqbalu nusa minu ahli zaman naan bokk na ci kiimaani yonent yàlla alayhi salaatu salaam mu jox ma ndigal ci ma soppi lii ma fi fekkoon ñoŋal ko ba bidaa ak mboolem lu bokkut ak lislaam ju sell lu ci nekk digal ma nag ma xamal mboolem taalibe yi ak képp koo xam ne si man Sëriñ Tuubaa di nga nangu sama euh, conseil ci yow li ma lay digal li ko def bépp doomu jamono loolu yonent yàlla moom alayhi sa moom ko digal looloo tax mu defoon jëf joojee waaye bi mu ko defee bariwaa nañu ko bañ ndax lim indi xamuñu ko ci képp ku mas a indi lu baax ci yoonu lislaam seytaane day indi da lay défendre da lay euh, ngir nga bañ a àgg fa nga jëm moo taxoon mu jógee foofee nag delluwaat Mbàkke Bawol dem Daaru Salaam bi mu demee Daaru Salaam gis nañ ni taalibe yi am nañ yitte ci moom ndax mi ngi leen di tàggat tàggat gu méttee méttee di leen jàngloo alxuraan yu bëree bëri ñuy zikar naan la ilaha illallah muhammad rasulullah di leen jàngloo xasida di leen xiifloo di leen liggéeyloo liggéey bu méttee méttee waaye ngir ak tayal dañ ci ñoom waaye di leen leen di leen doon leen digal ñuy joxe seen alal li wa ci laahi taala karim lool mu mel ni si jeex kàddu yi am na solo lool te it bokk na ci mel na ni dinañ faral di dégg ñu ni sëriñ bi amoon na yéene dem Màkka lool waajoon na sax ba am yéene dem màkk loolu nag baaxee ñu ci dëgg la ndeysaan sëriñ bi amoon na yéene dem siyaare ji baytullaahil xaram ndax bi mu jógee foofu ci daaru salaam nga xam ne demoon na ba feggu sax tuddee ko jàmm gën ca jamono joojee ngir bundu xatal yi ñu ko daan def ak njabootam mu dem ba mënatu ko supporter mu doo daal di ñëw tuubaa toxu si Touba bi mu ñëwee Touba nag mboolem nit ñi di ñëw ñetti nit ñoo daan ñëw ñetti kuréel ñii dañ ngir siyaare si ko ñii dañ daan ñëw ngir dañ kumpa ñii dañ daan ñëw ngir alali àdduna ji mu yor ci soxlawu ko mu jox leen ko te boobu jamono jooju mi ngi ànd ak bëggam dem siyaare ji Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba waxoon benn naaru gànnaar bu dëkk Mauritanie mhm. ne ko Ahmadu bu fekkee bëgg ngaa dem siyaare ji nga ànd man mhm. waajal mhm. ci diir boobee naaru naaru gànnaar bi delluwaatee Mauritanie moom ci la jógewaatee dem Jolof ngir Touba ni mu bëggee woon mu nekkoon dëkk bu jàng ak jàngale. Mhm. nit ñi ñëw di dëkk moom. Mhm. mu doog mu daal dem Jolof. Mhm. foog ne foofu lay ëppee jàmm. ndekete yoote ba mu demee Jolof. lañ ko la noonu continuer nag ba boole ko tubaab yi nga xam ne jamono jooju mi am mi ngi am ak bëggam ba waajaloon boppam ci lépp. ngir dem siyaare si Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam boobu lañ ko convoqué Louga. alhamdulilah jëlee ci jëleeti nañ tamit ci bayti sëriñ bi mu wax ni euh, kataballahu tabaraka wa taala wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam eh, am na baytillahi al-haram tarfahul malaikatu ila tuba eh, defe naa eh, looloot bu fekkee tamit xam naa ni bëggoon naa demit màkka moom taw am na nun am na taw tawféexi moom la fa moom xam naa ni fi ni nii ku koy làmb bay bo loolu looloot boobee demoon nga ci sànni lay kàddu alhamdulilah sëriñ bi moom lu mu bëgg rek borom bi da koy def ba ci mbindam yi lu mu bind rek borom bi nangu na ko bu yàgg bi borom bi xamee ni moom bëgg naa siyaare si Muhammad alayhi salaam da ngaa defal ak ruxsa ruxsa mooy lu yomb lool ndax sëriñ bi def bii ne kataba Allahu tabaaraka wa taala anna bayta laahi xaraam wa fiihi rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam tarfa'u malaa'ikatu ilaa Tuubaa waaw wa fiihi rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam yàlla suñu borom tabaaraka wa taala moo ko indil makkatal mukarram ba ci dëkkam bi ca nee na jamono joojee mu koy indi mm-hmm. wa fiihi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam boobu yonte yàlla moom alayhi salaatu salaam mi ngi ci biir kaxwatul nga xam ne lim doon wax rek ca téere bi naan wa kullu ma xalla bil iktifaa'i mm-hmm. xayrun min al kasiri silxanaa'i mm-hmm. lépp lu bari ci ëndut ak njariñ lu néew ca bari njariñ lool da ko gën ca man sama lépp noonu la def nga xam ne coono bi mu naroon a daj dem siyaare ji sayyidina Muhammad alayhi salaatu salaam léegi coono boobu suñu borom wàcceel na ko ba nga xam ne si biir këram lay génn di siyaare si nabi alayhi salaatu wasalaam ah kon alhamdulilahi rabbil alamin kon foofu la ñuy yemale émission bi ba ci kanam ñu ngi leen di dikkaatal ci deuxième partie bi incha allah ba tey ñu ngi ànd ak seen sponsor eh, Western Union yéen ko gis noonu muy ànd ak ñun ci programme waajal màggal Touba eh, yéen a ngi ko gis noonu ci suñu ginnaaw muy ànd ak ñun ci émission yi ñuy def yépp eh, am na solo lool naka mbokki taalibe yépp xool bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum seen mbokk taalibe Saliou seen xarit mooy ànd ak yéen émission yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum